الحمد لله الكريم سلما على استقالي بفرود وسنن aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki julli di mbokki taalibe yi ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi fii tey ci aliye ci dëkk bi nga xam ne mooy dëkk Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal te dëkk bi ku tudd Aliya tudd Cheikh Mouhamadou Fadal mi nga xam ne moo ko sancoon moom moo moomoon dëkk bi waaye rafatale ko 1948 doomam ji nga xam ne moo di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal tey ji nag ñu koy fàttali yemook tey di alxamis yemook la 12 avril 2018 ñu di ko amale fii ci Touba Aliya ci taawam bu baax bi muy Serigne Moustapha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñu fas yéenee dugg nag ci biir fas yéene leen wan lépp loo xam ne ruusane ci màggal gi gis ngeen njaboot gi nga xam ne ñoom it moom lañ tudde bis bi muy njaboot ak Cheikh Sidil Mokhtar te Serigne Moustapha ñëw ànd ak mbooleem ay rakkam ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ñu fas yéene dugg fas yéene leen wan lépp la xew ci màggal gi du leen ump ak ci seen site bi ñuy wax actu.com ñu fas yéene alhamdulillahil karim ala istiqaali bi furudin على استقال بفرود وسنن سكرت لأنه قد سخني لوطن بي نفى مع القني وخادني إليه بالتهاني من بعد ما سبب التخير وجرني فيه إلى العلوم والفوز والأمل بالمحلوم ثم الصلاة بسلام تبعا عندهم عندنا لم من المصطفين الأخيار yal na ko yàlla tabal ci loola tey ci loola ngeen tabbi ah mu tàmm ndax yi ñuy tàmm tànne Moustapha yi ba alxuraan yi di ko wax mi ngi ci yéen mun ay ay al Moustapha yi waaye nag sëñ Touba dafa amul asaar. tey la lan. tey la alxamis de. weer wi ban weer la. du rajab rajab la de. sëñ Touba dafa wax ni. waajaxani yowmal xamiisi fii rajab. waajaxani yowmal xamiisi fii rajab. mu sarmadan ala hajab bi maa yadoomu sarmadan ala ajab sëñ Touba daf ni sëriñ Touba daf ni ci bisub alxames ci bisub alxames ci weeru rajab ci weeru rajab la ma san xam la ma san borom jox loo xam ni baadunay tukki kémtaan lay doon baadunay tukki kémtaan lay doon sëñ Touba tegaat ci ni tegaat ci ci bisub alxames ci bisub alxames ci weeru rajab ci weeru rajab lépp lu ma doon jaay sama borom lépp lu ma doon jaay sama borom ci la ma jox njëg gi ci la ma jox njëg gi sëñ tubaa waxaat ni sëñ tubaa waxaat ni barra anil xudduusu barra anil xudduusu min amraadi min amraadi wa askanal azama wa askanal azana ahsana ahsana wa askana al azama fi axraadi dan daf wa askana al azama fi axraadi axraadi sëñ Tuba daf ni sëriñ Tuba daf ni ci bisub alxamis ci bisub alxamis ci weeru rajab ci weeru rajab ci la ma san borom tàggaleeg mboolem xeeti tawat ci la ma san borom tàggaleeg mboolem xeeti tawat ci bis boobu it ci bis boobu ci la def ci la dem man lépp lu ma bëgg man sëñ Tuba ci la wax ni man sëñ Tuba lépp lu ma bëgg sam borom tàbbal na ci ismullahil azam sam borom tàbbal na ci ismullahil azam te wérdkat yeeg te wérdkat yi sëriñ seeg ak sëriñ si ñii ñaan ak ñii ñaan ak lenn fu fe fenn fu nekk fenn fu ne ña nga fay gëstu ismullahil azam ñu nga fay gëstu ismullahil azam sëriñ Tuubaa ne bu ñu tàngalee kafe ngir man sëriñ Tuubaa ne bu ñu tàngalee kafe ngir man tàngal warga ngir man tàngal warga ngir man ku nekk ci sama ëtt di bale ku nekk sama ëtt di bale ku nekk ci sama kër di sàkket ku nekk ci sama kër di sàkket wala ngay buub wala ngay dëppoog sama bëgg te muy dëppoog sama mësu koo gis fenn tubaa waxaat ni sëñ tubaa waxaat ni ci bisub alxames ci bisub alxames ci weeru rajab ci weeru rajab ci la sama borom dindee bépp kiiraay bu doxoon sama digganteeg moom ci la sama borom dindee bépp kiiraay bu doxoon sama digg moom ba su ma yàlla ba su yàlla du may wérd du may du ma wérd de wala may def listixaar wala may def listixaar wala may def intikaaf wala may def intikaaf wala lenn loo xam ne danaa ci wut yoon wu ma jëmee ci yàlla wala lenn loo xam ne dama ciy wut yoon wu ma jeme ci yàlla fu ma ko soxla fu ma ko soxlaa rek mu wuyu ma mu wuyu ma te loolu ci alxames te loolu ci alxemes ci weeru rajab ci weeru rajab ci la ma ko sama borom ci ko sama borom defal lam yabqa bayniya lam xa bayniya wa bayna rabbi wa bayna rabbi mukaddirun gindee dindi bépp kiiraay. bépp kiiraay. bu dox sama digg ak rasulullah. bu dox sama digg ak rasulullah. ba fu ma ko soxlaa. moo may wuyu. fu ma ko laaji moo may jox. fu ma ko nuyoo. moo may fay. lam yabqa bayniya wa bayna al muntaqa salla alayhi laahu maanihu irtiqa loolu wax te bisub alxames ci weeru rajab ci la ko suñu borom defalee loolu kon ci barkeb alxamis ci weeru rajab bi yal nañu yàlla boole taas am njaboot gi yëpp. mu jox la sëb cër. mu jox la sëb boo ñëwul. boo ñëwul. mu fekk si la. mu fekk si la. jox la sëb cër. jox la sëb loolu nag des ko mënut weesu. loolu nag ma ne si Cheikh Mouhamadou Lamine. la mu jëkk a wax. la mu jëkk a wax. dafa dal xel. dafa daal di wax ni. dafa dal xel. dafa dal xel. te matale woon lépp. te lépp. woo bokkam yi mu bokkal sëñ Touba yëpp. dafa woo bokk yi mu bokkal sëñ Touba yëpp. ni leen. ni leen. Eh, ñi ko moomoon. ñi ko moomoon day. dem nañu dem nañu. ñi ko bokk ñoo fi des. ñi ko bokk ñoo fi des. te dees di bokk lu ñu bokk. te dees di bokk lu ñu bokk. wasalaamualeykum. wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf. wa barakaatu. Serigne Moustapha. Serigne Moustapha mi ngi lay nuyu. di jottali ab siyaaram akub tentam ci lu jiitu jataay bi ci lu jiitu bis bi ci diggante seen yaari kilifa yi nga xam ne wala sunu kilifa yi nga xam ne ñoo waral jataay bi gannaaw Seyxul Xadim Cheikh Mouhamadul Fadal ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gàtt ko feneen ci lu mel noonu ci moom lépp aw yiw la seen waajur yi tàmbali woon ko nekkoon seeni sang ñu dundoon di ko dundal ci fànn yu bari fànn yu bari ba ci biir kër Cheikh Mouhamadou Lamine gépp ci biir kër Cheikh Mouhamadou Lamine gépp bu yàlla dogalee Serigne Touba suñuy bët. waa këram yi gisatuñu leen ci suñuy bët. muy dénkaane ab liggéeyam. muy dénkaane ab liggéeyam. tàmbalee ko ci biir kër Cheikh Mamadou Fadal. tàmbalee ko ci biir kër Cheikh Mamadou Fadal. dénk ko Cheikh Mamadou Lamine. dénk ko Cheikh Mamadou Lamine. mu nekk bi mu ci ne. def ci li mu ci def. def ci li mu ci def. ba ab liggéeyam mat. ba ab mu delluwaat. mu delluwaat. ci biir Cheikh Mouhamadou Lamine. ci biir Cheikh Mouhamadou Lamine. Cheikh Sidil Moukhtar. Cheikh Sidil Moukhtar. def ci taxawaay bi mu ci ak mat. ci ak mat. ak lu rafet. ba liggéeyam mat. yéen ñii di seeni i taaw. yéen ñii seen xam loolu. xam ko dund. ci seenu nekk. ci seenu nekk. ci kon bu ñu leen gisatul ci suñuy bët. ngeen koy dundal. ngeen koy dundal. dana dal dina dal xelu njaboot gi. te dal na suñu xel. te dal nag suñu xel. <coughs> kon sëriñ Moustapha. sëriñ Moustapha mii. sëriñ Moustapha mii. mi ngi yëkkati ay mi ngi yëkkati ay cant. jëme ko ci boppam. jëme ko ci boppam. ndax yaay moom mooy yow. ndax yaay moom mooy yow. ci lépp nag. ci lépp nag. am am na lu bari yàlla dëppale yéen. ndax seere si si ñuy dégg. bàyyi ko ca néeg bële. muy bàyyi ko ci néeg bële. ñu naan ko buy mbind. ñu naan ko buy mbind. mu jëm ci sa jëmm ji. mu jëm ci sa jëmm ji. lépp rafet. lépp rafet. lépp baax lépp baax. seere si ñuy déggit. seere si ñuy déggit. te ñu mat ci seere. te ñu mat ci seere. muy bàyyi ko ci néeg bii. muy bàyyi ko ci néeg bii. jëm ci jëmmam ji. jëm ci jëmmam ji. lépp rafet. lépp rafet. lépp baax lépp baax. yàlla mi dëppale seen tur yi. kon yàlla mi dëppale seen tur yi. dëppale seenub liggéey. dëppale seenub liggéey. seenu njaboot. seenu njaboot. ñu ngi leen di bokk ñaanal. ñu ngi leen di bokk di ñaanal. yal na leen yàlla yàggal. yal na leen yàlla yàggal. yal na leen yàlla wéral. yal na leen yàlla wéral. yal na leen yàlla dolli sutura. yal na leen yàlla dolli sutura. njaboot gi topp ci seen gannaaw. njaboot gi topp ci seen ginnaaw. yaakaar yi leen yàlla boole ak ñoom. yaakaar yi leen yàlla boole ak ñoom. yal na ngeen ko matale. yal na ngeen ko matale. ci seen dimbalal maam. ci seen dimbalal maam. am na ko mën na ko. am na ko mën na ko. ma def ci ay seere yu gàtt. ah Serigne Gallas Kaltoum nee na mu def ci nag ay seere yu gàtt. yoo xam ne. yoo xam ne. man maa ko dundal sama yoo xam ne moo ko dundal boppam. bi yàlla dogalee. bi yàlla dogalee. Serigne Baara. Serigne Baara. toog toogaayu Cheikhul Khadim bi. toog toogaayu Cheikhul Khadim bi. damaa toog ci lu matul weer. dafa toog ci lu matul weer. jataay yoo xam ne ñetti jataay la. jataay yoo xam ne ñetti jataay la. Cheikh Seydil Mokhtar. yónnee ndaw ni ko Serigne Cheikh daf ko Serigne Cheikh daf may woon. mu ne ma demal. mu ne ma demal. ba ma ñëwee. ba ma ñëwee. la ma doon doyee. la ma doon doyee. li may wax nag. li muy wax nag. maa ko dund. moom si galas nee na maa ko dund. sama diggante ak moom. sama diggante ak moom. keroog bi mu ñëwee fekk ko ci salle bi guy mbind mu bi mu dikkee fekk Cheikh Sidil Muxtaar ci salle bi ca guy mbind mu toog. sëñ Cheikh Baara mi ngi nii toog. sëñ Cheikh Baara mi ngi nii toog. Cheikh Ndiaye nga fa. sëñ Cheikh nga fa. Cheikh Coro nga fa. waaye yàlla rek moo doy seede. waaye yàlla rek moo ko doy seede. xaw ma ñoom ndax fàtte nañ ko. xaw ma ndax waaye dafa ne sëñ Baara dafa da ko ni Modou Lamine. may leen ma ma wéet ak si galas mi. may leen ma ma wéet ak galas génn. sëñ Baara mi génn. sëñ Cheikh Thioro génn. sëñ la ma doon doyee leen rek. la mu ko doon doyee leen rek la. dafa ni ma. daf ni ko. dama lay woo. dama lay woo. bëgg nga góorgóorlu. bëgg nga góorgóorlu. ci wetu Serigne Bara. ci wetu Serigne Bara. ndax foofee ndax foofee ku fa nekk ku fa nekk jàpp naa ne man la fa nekkal jàpp naa ne man la fa nekkal ngir ngir jëmmi Serigne Ba ma kon nañ ko duppee ko duppee Cheikh Serigne Moukhtar lépp lu ñu ciy def lépp def naam daan bi naam daan nañu def bis bi de ku ñu ko ñu ko tuddee mu yem ca conférence su sëñ mu waaye mu ne ma waaye bii moom da ne ma mu ne ma dayoo bi mu am moom dayoo bi mu moom ci diggante Serigne Bara ak Serigne Fall ci diggante Serigne Bara ak Serigne Fall waaye dayoo bi mu am ci nekk Cheikhul Khadim waaye dayoo bi mu am lam fi nekk seewul xadim tax na tax na lépp lu ñuy def ci bis bi lépp lu ñuy def ci bis bi te di ko tàmbalee ci man te di ko tàmbalee ci man ak képp ko war a dégg ak képp ko war a dégg lépp lépp nañ ko jël nañ ko jël jagaleel ko Cheikh Sidi Mouhtar jagaleel ko Cheikh Sidi Mouhtar lu ñu ci defal Cheikh Amadou Lamine lu ñu ci defal Cheikh Mamadou Lamine boole leen ko fasal leen boole leen ko fasal leen bu ñu ko santee nag bu ñu ko santee nag te teewoo fa woon te teewoo fa woon te liggéey bi jëm fenn te liggéey bi jëm fenn lépp di benn lépp di benn boo fi teewee Mbàkke boo fi teewee des na la ko fàttali des na la ko fàttali des na la ko yëgal des na la ko ko yëgal. ngir nga xam ko ngir nga xam ko. nga xam ne loolu mooy taxawaayam. nga xam ne loolu mooy taxawaayam. ci fépp fu muy dox ci fépp fu muy dox. ak fu muy jëfe ak fu muy jëfe ngir sàkk fa aw yiw ngir sàkk fa yiw. waaye damu bànneexu way juróom. waaye damu bànneexu way juróom. bi sëriñ bi nee mi ngi lay seedeel loolu. cant yi mu ëmb ci xolam. cant yi mu ëmb ci xolam. jëmee ko ci sa jëmm ji. ko ci sa jëmm ji. ak sa njabootu bopp gi. ak sa njabootu bopp gi. te mooy kër gee ak kër gi. te mooy kër gee di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak kër gi am na fu mu tàmbalee. ah am na fu muy tàmbalee. waaye amul fu mu yem. waaye amul fu mu yem. lépp aw yiw la lépp aw yiw la. lépp ak taalibe lépp ak taalibe lépp bëgg lu baax lépp bëgg lu baax. yal na ko Seexul Xadim na wa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. boo nee aw fit kenn du la mën a xëbal. adduna laa daa bëri xëble. kuy def lu la xëbal nga ni peut-être ci xel ngay dëkk. te ku dëkk ci xel doo taxaw bay taxawal dara. boo amee fulla kenn du la fayee. boo doyloo kenn du la mën a jënd. boo amee jom loo song daaneel ko boo yaroo ku la gis bëgg la boo jubal a la toroxal boo amee njariñ doo wéet wasalaam Mm. Mm. julli ci sangu bindi fii Sidina Muhammad di jaajëfal Xaadimu Rasuul di gërëm bu baax nag Alaaji Fallu Mbàkke mi leen boole ci Sëñ Tuuba jëwriñam de taalibeem ba soppeem ba Cheikh Mouhamadou Lamine Baara moom ci boole daana ko wax ne Moustapha fexee na am ak taalibe te bañ a wut ay taalibe boo amee taalibe te amoo ak taalibe du la jëriñ dara fexee na am kilifa moo gën kilifa ku amul kilifa seytaane nekk sa kilifa sëñ Abo nag bi mujjee waxtaan ak moom maam Diarra Abo da ko ne am nga sens mu ne ko lu ma amee sens mu ne ko ki ay bokkam lañoo baax taggu leen ci jox-jox doo tagg kenn ci jox-jox da leen a ci jikko. Alxuraan dina yiw ci ñoom dina ci ñoom wala rëy dina ci ñoom it teraanga ku am soxna su mel noonu nag say goro duñ la solal moo tax mu ne ko am nga sens ñu ngi leen bu baax nee na bari na ñu borom leer de waaye ni ngeen di defee ni ngeen di dikkee. xanaa Amy Ndiaye sama doom bu bu boole baax ji di sama goro boole si rek. waaye gërëm na ko sant na ko dana am teraanga ñëpp xaj. da koy wax ne ko. ko war a def yaay. sa yaay di dem nag. moo da daan nampal. ak jënd soow. mooy yeneen. booba sa yaay di ñëw da doon xarit nag de mooy sa yaay juróom benni weer la am xaritam mi ngi leen di xamal ni ñi ngi leen di ñaanal yàlla yokk seeni xéewal fan yokk seen wërsëg ba li ngeen ba a jëf yàlla dimbale leen man ko sant nañu bu baax leen di gërëm bu baax lii dana gën koo am ñooma ñoo xam ni mën nañ ko doxale neneen su ko defee nee na li ko intéressé ci doomu aadama yar jox na leen ko de yokku naa ci dey maam jaaram ni bañ koy bëgg a defee. mi ngi nii daal alhamdulillahi alkarim salman ala istiqaali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarim salman على السقال بفرود وسمن سكرت لأنه قد سخني لوطن بي نفى مع القني وخادني إليه بالتهاني